fait de la négation du droit des droits de l'autre yow ci moment boobu ci la ñuy en fait reconnaître sa droit mais ça ne fait pas sens ça ne fait pas société loolu du yoon man damay def benn croix rouge yow ci sa droit ba pare reconnaître sama droit après société bi mën a reconnaître man sama droit c'est mais la société n'est pas ne comme ça non Thomas Hobbes waxul loolu Jean-Jacques Rousseau waxul loolu yonente bi waxul loolu gis nga ci droit yi ak ci loi yi nit ñi bu ñuy judd ñoo fay tolloo. ñoo fay tolloo loolu déclaration universelle droit de l'homme loolu la wax. mais doo ñëw taxaw fële di vole di suus di mandi di tappale di tox say yàmbaar yaa ngi dégg di toj say butéel di génne say jàmm def li ngay def ba pare après nag droit de l'homme yi génn ne kii da ngeen ko war reconnaître ay droit ay ay ay droit am parce que il a le droits ou bien le droit de l'autre parce que nit ki boo demee ba en fait ba di ko rey mais reconnaître loo dara ci moom li wax nii c'est une logique la jeex na alors logique pour logique njeexal euh. nañ daanaka timing bi euh. mais dañu gis démb hmm. euh, ñu ñu teg ci table bi benn livre blanc waaw bu anne de règne le président Macky hmm. Sall mi fi jóge hmm. mais doon nañu yi tamit ñi nga xamante ne ni xëy na ñàkkoon nañ seen bakkan ci douze ans yi mais jotuñu ko ci seetlu déjà yow livre blanc boobu noonu ci sa jàngat en tant que journaliste lan lay doon. non livre bi gis naa ko yónnee nañ ma ko quoi mais lire gu ma ko dama commencé woon di liir nii jusqu'à la trentième page après ma arrêté quoi mais livre bi daal loo ci mën a dégg mooy loo xamante ne bii li ma jotagum lire ah, mooy loo xamante ne bii ñun xamoon nañ ko te daan nañ ñu ko wax ñoom. en termes de chiffres et de statistiques. Mais est-ce qu'il est qu y a un impact ou doon xaar ci moom tam waxoon ko dans un hôtel de mooy même bu ma tabaxul ay pont dinaa teg réew mi ci yoon loolu waxoon na ko bi fiy jógee wax dëgg ne yàlla réew mi dëgg la institution yi ñu ngi doon fonctionner et cetera et mais la sobriété et la vertu bi nga xamante ne bi moom lañ doon jaay ñun en grande partie sénégal yi gisuñu ko ba pare le livre là. devait être un livre de reconquête du pouvoir ou bien de conquête du pouvoir mais ça n'a pas été le def exercice du pouvoir ba jóge fi doo génne livre. amul sens quoi. pour man loolu nga ciy am quoi c'est-à-dire en terme de gain te homme politique bu def dara loo xamante ne waru ci am gain quoi pour man kan lañuy tontu peut-être premier ministre lim ne l'État est en ruine on a hérité de État ou bien d'un Sénégal en ruine peut-être am na lu ñu war a génne contre ñoom. ñuy njëkkantu mais man de politique d'analyste man j'aurais aimé ñuy dem élection nekk benn say comme Macky Sall bi muy dem élection le Sénégal au cœur octobre 2018 il sort un livre pour reconquérir encore de suffrages supplémentaires et se maintenir au pouvoir voilà <laughs> voilà mais doo ñëw wala ngay ñëw fëgg waxaguñ la entrée nga yëglu à travers un livre pour wax leen man maay kan ailleurs on parle de testament comme OS l'avait fait lors du pacte de Keur Massar je m'appelle Ousmane Sonko ma mère s'appelle mon papa bi may ñëw j'ai fait la ziara et cetera bon avec le fameux mu ngoog quoi. kon daal yaa ngi dégg moment bi du tey. non non timing bi déet mais ñëw xam nañ kañ lañ koy def. Macky Sall 2008 bi muy ñëw Diène Farba Sall moo bindoon livre ci moom wax ñu kan mooy Macky Sall fan la jaar yan fonction la occupé lan la def lan la mën ba tax buñ ko joxee dina mën wala. mais nga dem ba jóge fii te yow ni fi jógee ñëpp xam nañ leen en fait bu dee en langage euh, brut comme sax mais dañ laa dàq quoi en fait mm-hmm. <laughs> dañ la dàq aux affaires après nga bind livre mais kan lay impacter kan ngay waxal kan nga bëgg a influencer voilà <laughs> dañ wax dëgg OS lorsqu'il est venu livre la génne ñaar wax mooy kan et cetera fan la jaar dem élection day génne waat livre mais dem ba pare ci quoi c'est-à-dire pare nga ci soo génnee mais li ma gëm mooy Macky Sall moom dafa gëm ni moom bu ñëwaatee mën na am dara moom loolu la gëm. loolu la gëm ah <laughs> kanam rawu li gën alors pour pour terminer on a vu ci semaine bi tamit des arrestations ku mel ni Lat Diop bon ay interpellations. Mm. naa ko tuddee noonu. non ku mel ni waaw moo tax ma mm. rectifier. Mm. interpellation naa ko jàppee noonu ñu convoqué leen ñu ñëw ñu ñu ñu waxtaan. donc après ñi ñibbiwaat seen kër déjà yow noo koy noo koy noo koy jàngatee. man li ma yëg. mooy passeport am lañ doon jël man nag wax dëgg neex yàlla man su ma nekkatul bon autorité sax état d'esprit la mais su ma yoratul ndomba tànk waaw kay man lépp loo xamante ne bii dañ ma ko joxoon à ce titre mm-hmm. jibi saar dama koy delloo ko en fait loolu mooy dignité mm-hmm. ah parce que lii coow lii mënoon na bañam am mm-hmm. voilà muy joxoon nañ la oto nga xam ne lii pour loolu la delloo ko joxoon nañ la kër pour loolu la delloo ko nañ la passeport delloo ko lépp loo xam ne da doon facilité sa dem ak sa dikk par rapport à cette fonction mais il faut. il faut nga delloo. il kon daal loolu mooy yoon. waaw ah, mooy ku mel ni commissaire Keita nag. déet dimbali ma nag bul yàq sama émission bi nag. non non tëjal tëjal oh, tëjal non non non sëñ bi yow respecté ma <laughs> ah waaye jiw kii lu muy def nii. su ma xamoon non saa waay bàyyi li ngay def <laughs> yow man damaa yi. maa ngi lay xanaa sant yàlla bu baax a baax a baax di nuyu tous les sénégalais d'ici et de la diaspora <laughs> d'ici et de di ñaanal sénégalais yëpp di ñaan yàlla màggal gi ñuy jóge yàlla defal ñu ci amiin amiin barke defal ñu ci yiw ñu ngi dëgmal gàmmu nag te njool màkk euh, coow li coow li coow li njool màkk la nag hmm. waaw bés yonent yàlla Moussa mos nay waxtaan ak yàlla waxtaan bu bu neex waay waaw parce que muusaa dafa ñëw yonente yàlla Moussa dafa ñëw fekk ay réservation yoo xamante ne yàlla yonente bi la ko réserver mais loolu naa la ci mos a may ay ay affaire waaw donc moom daal mu ñëw affaire yi yéem na ko et cetera mu ne kon moom daal lii daal la bëgg yàlla ne ko non du demee noonu lii yonente bi moom laa ko réserver waaw daanaka après mujj gi yonente yàlla Moussa dem ne ba ne yàlla est-ce que doo jël yow yaa ngi dégg mm-hmm. yonente bi nga ma jox te boole ma ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko nag Moussa xuzma ataytuka wa kun mina shakirin maanaam li ma la jox jël ko ba pare yàlla dafa jëfandikoo fii lu am ni waaw maanaam impératif la jëfandikoo ci kawam ne ko jëlal li ma la jox da nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy sant moo tax Cheikhul Khadim xam ni coow li coow li yonent bi la moom mu ne ko dann rek mayu ko jàmm ba moo tax moom li mu am moom ma ngi koy wax defe naa ci téereem bu ñuy wax sullamul usul mais bayit bi may bëgg a wax nii moom màggalu déwén laa koy firi <laughs> am envie dëkk bi rek. Mansour ma doo war a ngi koy wax naan nan la ko waxatee waay bayit bu neex waay. sullamul usul defe naa waaye dama ko fàtte de dama ko fàtte mais bu ñëwaatee. dina ñëw dina ñëw te dinañ ci def dara. ma xool est-ce que man moom mu ngi koy mu ngi koy wax ci. Eh, mu ngi koy wax ci ci ci ci ci kii bi eh, liñ koy wax waaye waaw kay mu ngi koy wax naan ala man alayya walastu sadiya <laughs> lahu kulla amin hadaya madiya <laughs> tëjal sa aji dem ala man alayya walastu sadih lahu kulla amin Euh, Hadaaya Madiha kay noonu la. sëriñ bi boo ñëw defal ñu fi gàmm fii incha allah. man man ma gàmm de nee naa li ma wax nii <laughs> déwén la jëm nga naan ma gàmm. <laughs>